ama am solo bu nguuru Sénégal jagleel doomam mi nga xam ne ni ñoo demoon Dubaay ci anam yu doy waar ba mujjewaat dellu siwaat fii ci mim réew nguur gi taxaw na fas leen yéene jàppale ba ñu am xëy daañu leen tàggat ci ay métiers yu bëree bëri ci ndimbalu waa ONLP ak ONG Jamra mi nga xam ne lu ma at a ngi ni muy gindi doomi Sénégal yi la. di leen promettre moo ay merveille lekk seen xaalis ba pare leen wëlbati woon leen ginnaaw daal di dem seen yoon disparaître kon ñii fi toog tey ci catégorie boobu la ñu laata ñaamal jotaay gi def nañ nag liggéey bu am solo si lu ñeel yi nga xam ne yi les migrants mën nañ ko def fii si mim réew ku si nekk nag dañoo xool fa sa xam-xam gën a màcc ak la nga gën a bëgg it. parce que ñun bala ñu lay tàggat aussi suñu ingénieur de formation dañuy dañuy poser ay questions ah fan nga jaar lan mooy sa histoire lu tax nga bëggoon a dem ay question la yoo xam ne yëpp dañ la koy posé ban ngay mën a def c'est mm, des questions yoo xam ne c'est des questions préalables dañ la koy posé bu ñu ko xamee nag te la ñu ubbil dossier en ah, xool ban métier lañ lay jox ba bu ñu la tàggatee ba pare nag ñu xool fan lañ lay orienté donc loolu yëpp travail boobu def nañ ko ba pare nga bala ñuy def bii forum. ñoom ñi ñu jagleel bile programme ñu ngi rafet lu taxawaayu nguuru Sénégal tàmbaliwaat nañ di am xel mu dal si du ñeel la seen ëllëg. donc boobu ba léegi nag na trop am na ñoo xamante ni xaar nañ ba xaar ba tax na ci gaal yi ba dem ñàkk seen bakkan muy suñu ay frère maa leen sant bu baax di leen gërëm. nag ndorteel bi dong la. du doomi Sénégal yi jóge Dubaï kott lañ ko jagleel migrant yépp lañ ci boole nguur gi li mu ci jublu du lenn lu dul fexe rekk ba ndaw ñi bàyyi géej géej àll bi ñuy jaar ngir wutali réew tugal yi